jàmmarloo ñu leen di laaj ñuy tontu ci kanamu doyen de juge yéen kaay gi di Vox Populi nee na juróom benn fan ci weeru décembre bu 11h jotee yéen kaay gi di enquête wax ci rapportu ARMP 2020 rapport bi nag bëri na ñoo xam ne joxaat bi nañ leen baaraamu tuuma ci ay ndëng te yoo xam ne def nañu ko ci marché yi xam ne joxe nañu ko journal bi nee na ki di pharmacie nationale d'approvisionnement maanaam di PENA ay ndëng te bi yéen Sarr naan ñu ARMP daan nañ épinglé tamit ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diouf Sarr ci ay ndëngte yéen a kaay gi dalee seko nee ñi nga xam ne ñooy waa ARMP seen rapport 2020 ay jamono moo jiite woon DER délégation entrepreneuriat rapide ki nga jiite woon ay jamono bi joxar bi na ko baraamu tuuma daf ko daal di épinglé ci ay marché yoo xam ne daf ko waxaali bu bu ñu ko waxee mu ne secret défense la ginnaaw loolee tamit gis nañu ci ay surfacturation yu bare bari yoo xam ne Pape Amadou Sarr def na ko yéen a kaay gi na rapport ARMP bi daal li am ba desal daan na épinglé Pape Amadou Sarr mi jiite woon ci ay ndëngate giraawaal yi ak ay njombe yoo xam ne def na ko yéene kaay gi di Walf Fadjri ñu xëy fekk fa procureur moom nag daan nay génne ab communiqué wax ci faatu Fulbert Sambou nee amul lenn loo xam ne luy firnde na ne dañu ko daal di faat la daan nay jël dossier bi jébbal ko troisième cabinet yéene kaay gi di Sud ñu xëy fekk fa Alioune Tine lu jëm ci faatu Fulbert li nga xam ne nag moo doon yombal mbir yi ngir nag mbir mi daal di leer nañ mooy ñu daal di nga xam ne moo jiite Ligue Sénégal sénégalaise des droits humains moom nag daat nay wax ne wax ji nga xam ne ñoo koy wax ne Fulbert Sambou mënuñu ko autopsie loolee ay caaxaan la yéen a kaay gi délibération xëy duñu xibaar naan ñu ministre conseiller Sator Mbaye section de recherche ñoo ko tegoon loxo ci lu jëm ci wàllum escroquerie ndax moom Sator Mbaye dafa waxoon benn jigéen na ko mën la laa oto boo xam ne 40 millions lay jara jigéen yi daal di jël 40 millions jox ko Sator Mbaye mu ne daal di muy bëgg ku jigéen ki woowee maanaam femme ko mën a jot téléphone loolee moo taxoon femme bi daal di koy porte ñu daal di koy teg loxo waaye nag dañu ko a jéb jébbal procureur si la génne lu ci fukk ci ay millions jox ko ñi nga xam ne ñooy gendarme yi ba pare jox leen oto boo xam ne fukki millions lay jar ba wax leen ne leen yàggatul dara dinaa génn yeneen vingt millions jox leen muy quarante millions jàmm na ñooyee yéen gi de l'Observateur ñu koy fekk fa député Ami Ndiaye Gniby mi nga xam ne moo yëkkati woon kàddu yi jëmale ko ci Serigne Moustapha Sy Ami Ndiaye Gniby nag bi ñu ko laajee ne ko lañ loole nag maanaam nañu ko tay yéen kaay gi di quotidien yor yora xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko neexul ba neexul waaye Ousmane Sonko dafay joxe liggéey ndax ñi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall boo mënee saaga Ousmane Sonko rek ñu daat lay nomee jox la poso Mamadou Lamine Massaly daat nañu koy nomee def ko PCA ONFP yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu fukki fan juróom-ñeent ci weeru novembre bi nga xam ne moom la ñu bi ci xew yi ngir nag daal di ñi nga xam ne ñoo fi nekk ba xam yor nañu ay carte d'identité affrontement jàppante bu métti métti nag daal di jutu ba am ñaari takk der yoo xam ne am nañu ay gaañu-gaañu ki nga xam ne nag moo doon def mariage juróom ci ay jege ñaaleem yoo xam ne dañu leen tegoon loxo fukki fan juróom-ñeent ci weeru novembre daal leen di mandat dépôt démb nag lañ leen doonaata ci tribunalum Dakar waaye ñi nga fan ci weeru décembre la juge bi wax maanaam da leen di tëj wala da leen di setal yéen kaay gi di xëy yóbbu ñu ca diwaanu Sédhiou foofe nag dafa am benn fond infirmier boo xam ne moom la ñu fa daal di teg loxo gendarme yee ko jàpp ba ñu ko jàppe nag ca fekk nañ fa ay matériel médicaux yu bare bare bare waaye tamit fekk nañu ay médicament ca këram yéen kaay gi di bés bi xëy di ñu xibaar naan ñu carte presse nationale bu Sénégal tey jii benn fan ci weeru décembre lay ni daal maanaam yuroo ko mën nañu laa naan ñu Pape Alé Niang soo moytuwulee ci gerewu xiifal la jëma Reporters sans frontières ak kuréel yi nga xam ne ñoo ëmb taskatu xabaar yi tey jii danañu seeti Pape Alé Niang waaye nag fa nga xam ne fa la ñuy mujjee soo moytuwulee bu ñu ko libéré wu la maanaam bëccëg boo xam ne presse du am xibaar du am ci réew mi ba pare nag daal di boycotté bépp activité boo xam ne gouvernement bi dañu koy amala yéene kaay gi di l'info nee na capitaine Touré mi nga xamante ni dañu koo dàqoon ci gendarmerie bu Sénégal moom nag dafa jël mbir mi kalaamee ko sa jàpp ne dàq gi ñu ko dàq tegewul ci yoon nag ñi ko dàq dañ sa yéene kaay gi de la Tribune ah, xëy xibaar naan ñu armée nationale bu Sénégal ak opération bi xam ne mu ngi koy def sa Nord Sindia foofee nag na lu toll ci trois cent quinze hectares yoo xam ne dañu faa béyoon yàmba armée bi mën la militaire yi yàq nañu ko yéene kaay gi de l'Observateur daal di xëy wax ci lu jëm ci wàllu benn fan ci weeru janvier lay commencé yéene kaay gi de évidence ah, xëy diñu xibaar naan ñu lu jëm ci